jurul de jooy na xabaan de jooy na jooy naa xabaan de jooy naa cey sëriñ Saaliw daara yi jooy nan donga yi jooy nan jimi jooy nanu cey sëriñ saaliw daara yi jooy nan donga yi jooy nan

doy na noo madina jooy tuuba ba jooy na cey makka sa jooy na naxwa jooy na cey Sëriñ Saaliw makkate jooy na madina jooy na daaru tansil jooy na cey Sëriñ Saaliw alxuraan de jooy na hadiise jooy de jooy na jëmi jooy naa wakkaana xan jooy naa jooy sëriñ Saaliw alxuraan de jooy naa hadiisa jooy naa xasaayid de jooy naa jëmmi sëriñ Saaliw penku bi jooy na sowu bi jooy na gannaar bi jooy na cey Sëriñ Saaliw na kenn ku nekk jàng Faatiha ak ñetti Lixlaas ñu yéene yool bi Sëriñ Saaliw أحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لغيري فاز من لله والله الله فضل ظلما وقدمه ومن أبى نجا للأصل خلاه هو النبي رسول متماول تاويل كابر من هلا ولا إن الرسول لنور السلام بي دنيا وأقرى فمن هدى وردى لو خطابيا في سحر الربي ولا إن وجهات الذي بدر عدا لك الوسيلة لك الوسيلة كسا سبق وأجراه إليك تنقاد يوما يفي مصطفى جميعهم يا بصير جميعهم يا بصير نلت بصراه عديتي يا رسول الله hadiyati ya rasulillahi ya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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع عليه يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما bismillahi rahmaani rahiim alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'a al-usri yusra inna ma'a al-usri yusra fa idha faragta fansab ila rabbika farghab bismillahi rahmaani rahiim alam tara kayfa farak bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsalna alayhim tayran tarmihim bi hijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul bismillahi rahmaani rahiim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahiim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha qab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas bismillahi rahmaani rahiim sadaqallahu al-aziim wa ballaqa rasuluhu nabil mustafa al-karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa xaaliquna wa raadiquna mawlana min ash-shahidin allahumma arhamna bil qur'an al-karim wa anfa'na bil ayati wa dhikri al-hakim wa anfa'na bi dhikri al-hakim waj'al lana hujjatan yawma din allahumma anfa'na bima asrarta fihi min ayat wa dhakkirna bima darabta fihi min al-masulat wa kaffir bi tilawatihi 'anna sayyi'at innaka mujibu ad-da'awat allahumma rabbana taqabbal minna khatma al-qur'an wa tajawaz 'amma ma kana fi tilawatihi min sahwin aw nisyanin aw tahrifin aw taqdimin aw ta'khirin aw ziyadatin aw نقصان أو أو تبين على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو سرعة أو كسل أو صيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إذهال بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهزم من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه معدا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشر والأمن ولا تحرمنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا منا من الغفلة والكسل وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال من كر ونكير من أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات ثبت أقلامنا على صراط واسكنا واستفجنا وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غممنا وقائدنا وسائقنا إلى الجنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومدللنا في الخيرات في الخيرات ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من السيغ والأهواء والكجل أعداء يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم وربي بما يشفه الأسان قد فجاء بجاه أفضل من الله قد جاء حمدي لرب كريم لا شريك له وصدر man warna saatin mara muhammadun salawatullahi fi abadna alayhi fi hisbihi kulli bihi kala adu ilahi la namat mawahibuhu li jumlatil xalq ma yaxtaaru man bara najaytuhu jalla awaamun wa karama dakir mahajin wa kulli min laga baria rahmanu hab li jami al xalqi rahmata man yugni an sharri man qur'anuhu qaraa hab ummatan mustafa an kulli masdadin wal tarham min xalqi ya man jaddahum bala ya malikal mulki ya man jalla an qawadni arham min awra ya hadi rada mahawta ma qadnaha qal min darin bijahi wal min allahi qad lajaa ya rahman ya rahim allahumma axtim bi saadati ajalna wa xaqir bi ziyadati amalana waqron bilafid xudwana wa ansalna wajal ila rahmatika masirana wa maalana wasub sijala afika ala zunubina wa man aleyna bi sitri ayubina اللهم اجعل تقواك زادنا وثق بك صغرنا واعتقادنا وامن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين امين يا رب العالمين wa amin min al-juu'i wal xawfi bilaadana wa saa'ira bilaadil muslimiin amin ya rabbal aalamiin wa amin min al-juu'i wal xawfi bilaadana wa saa'ira bilaadil muslimiin amin ya rabbal aalamiin allahumma balligh ma qara'naahu wa nur ma tarawnahu li ruuhi sayyidina wa nabiyyina muhammadin alayhi salaatu wa salaam allahumma balligh ma qara'naahu wa nur ma tarawnahu li ruuhi sayyidina wa nabiyyina muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa li arwaahi aabaa'ihi wa ummahaatihi wa azwaajihi wa dhurriyyaatihi wa ashaabihi ridwaanullaahi ta'aalaa alayhim ajma'iin wa li arwaahi aabaa'ihi wa ummahaatina wa mashaayikhina wa li arwaahi jamii'il muslimiin العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم من المرسلين اللهم يا من أزهر الجميل واستر القبيح ولم يخص بجريرة ولم يهتك سترا ويا عزيم العفو يا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باصل الدين برحمته ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عزيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتلا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتنا نسألك أن تشبه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا عذاب النار allahuma anta aqrabu min kulli qaribin wa akramu min kulli karimin wa ajwadu min kulli jawadin wa ahfazu min kulli hawisin wa adhafu min kulli ladifin sawalak bi haqq ismika wadif an sakhir min khalq man yaqdilu hawaijahu yadfa'ani khusmain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 ahad وتهب لنا بها بمحض الفضل والجود والوداد مال الأقطاب والمفاتيح والأراد آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين waaw asalaamaaleykum ah imaam noo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di fas yéene yëkkati kàddu ci ndigal ndigalal Cheikh Abdul Karim Mbàkke moom sëñ Maxtaar moom Mamor Jaara yàlla dogal téewut ci jataay bi waaye it jataay bi ndax yebal na njabootam taawam sëñ maxtaar Mbàkke mi mu tuddee wajuram mu ngi nee toog ànd ak rakkam sëriñ xaadim Mbàkke mi ngi nii toog waaye ànd ak sëriñ xaadim Mbàkke imaam moom sëriñ Moustapha Mbàkke imaam moom maam moom sëñ Abdou Xafar moom Maamoor Jaar mi ngi nii toog kon njaboot sëñ bi mel na ni sëñ bi wuute wut jataay bi te it euh, booba léegi suba ba léegi mi ngi woote ngant li ko dab mooy yaram wu kii rek waaye ñu fasaale ko ci ñaanal ko bu baax ndax bàyyi na ko xel lool Mbàkke te it loolu imaam bu ñu ko waxee yow xam naa ne mën nga ci sëkk seede ndax xam nga yitte ji jox koñ bi ak fi mu ko toll kon nag mi ngi ànd ci jataay bi di leen nuyu di leen siyaar bu baax xam na ne lii ngeen def moom ngeen ko defal jataay bii seen teewaay bii mel na ni moom ngeen ko defal kon yàlla na yàlla yàggal taxawaay yi bu ko defee noonu fu ñuy yëkkate suñ kàddu rek imaam ci li mooy santaat yàlla bi ñu mayee bis bi nu fekkee ko ren doon ñaar fukki at ak juróom-ñett muy vingt-huitième édition ñu koy def loolu ñu ci santaat yàlla bu baax di ci feddli cant ci suñu sang ba sëriñ Saliou Mbacké ñaan yàlla yàlla yokk leeram te taasu ci barkeem waaye liñ ci indi nga xamante ne yokk nañ ko ci ren di fàttaliku way daw li nga xamante ne yàlla dogal nañu àndoonak ak ñoom ci liggéey bi ñenn ñi doon ay jàmbaar lool bokkoon ci daara ji waaye ñenn ñi dokk doon ay dëkkandoo yoo xamante ne ràññee na leen ci seeni jëf ñu sëriñ màggat jaw nekkoon chef de quartier Baye Maga Diaw wala sëriñ Abdoulaye Ndiaye ñu koy wax Grand Ndiaye ñëpp ràññee ko ñooñu tudd nañ leen ci ñi ci desit fukk ñeent lañ ñoo xam ne tànn lañ leen ci ñii ay membre la ñu doon àndal liggéey bi ñii ay dëkkandoo yu ràññee ko ci liggéey bi dinañ leen tudd ñoom ñëpp imaam bu ko defee ñoo xam ne bii loolu mooy sabab bi ñaan gii li ñun ñoo ñaan di jàng alxuraan di wàcce kaamil ñu ñaanal leen ci fasal leen ci yàlla yeesal yërmande ci ñoom te jéggal leen seen i bàkkaar xaral leen àjjana barke Cheikhul Khadim noo ngi sant ñëpp ci kàddu yi ñuy yëkkati Mbàkke te xam ne kàddu yi ndigal la rek ak yéene waaye bu ngeen teewee rek mate na lépp euh, sëriñ Mourtala sëriñ Mourtala Pouy mii doon jàng xatm bi doomu sëriñ Daawda Pouy imaamu raati bu tuubaatul Babacar magam mi ngi ci yoon wi di ñëw kon nag loolu lépp yitte la joo xamante ne ñëpp bàyyi nañ xel bis bi te yaakaar naa ne yàgg nañoo ànd ak ñoom ci jataay bii la jaajëfal yow ci sa taxawaay aan yaag imaam Cissé ak imaam Birahim Diouf mi ndax du tey démb la te taxawaay bi xam nañ yitte ji ngeen ko jox alhamdulilah jërëjëf gis nga ko kon noonu rek la demee boo defee ñii rek lañ tuddoon imaam ma gaaralal nga ko kon alaaji màgget jaw lañ ci tànnoon ci ñi ñaanal fàttaliku ko ci waaye sëriñ Abdoulaye Ndiaye bu ko defee ak suñ jàmbaar ji ko Faye mi nga xamante ni ci daayira la bokkoon doon ñu ràññee ko ak ku ñuy wax Modou Thiam Naes yaakaar naa ñëpp ràññee nañ ko wala xam nañ ko ci kon bi Modou Thiam bokk na ci ñi ñu fàttali ko di ko ñaanal moom tamit incha allah ajaratu Gansiri Thiam ajaratu Gansiri Thiam dëkk fii ci tali bi moom it bi mu làqoo toll ci daanaka ñaari weer ak soxna Khady Gueye wan suñu yaay soxna Khady Gueye mii dëkkoon fii ci koñ bi moom it xam nañ ko waaye bu ñu ko mel ni soxna euh, Nabu Mbay Nabu Si moom it moo dëkkoon ci kër gi moom lañ kër yi fi ñu daan Serigne Sidi Mbacke alxuraan. soxna Nabou Sy incha allah ci ñooñu la bokk waaye ne soxna Ndey Seck mbuub di soxna alhaji ma diine mbuub yaakaar naa moom it ñu bari xam nañ ko moom it ci la bokk incha allah ak ajaratu Marème ajaratu Marème Touré ajaratu Marème Touré yaakaar naa imaam xam nga ko bu baax bokk ci mag ñi dëkkoon ci koñ bi mag ñi mujj ci koñ bi kon bokk na ci ñuy fàttaliku ak ajaratu Marème Gaye ajaratu Marème Gaye bis ni ki tey lay am at ci kaw suuf daaw la génnoon àdduna di yaay ci soxna Kaafa ak soxna Maku Seck ak soxna maam jaara Jóob doonoon membre ci daayira bi yaayam soxna Daba Xule bokk di ja ci daayira bi ay jàmbaar lool koñ noonu lañ tànnoon ak ak ajaratu Faatu Mbaay maire Mbaaya yàlla des dogal mu des ca màkkatal mu karam soxna maire Mbaaya ñëpp xam ko moom it ñu koy ñaanal waaye di ko tëjee ci soxna e, kaani Jum soxna Kani Jum moom it doomam di suñu membre soxna e, e, wañ ñu koy ñaanal bu baax kon bu ko defee ñooñu lañ tànnoon di ñaan rek euh, ñaan gii ñu fasaale lañ ci kaamil bi yàlla mottali suñu yéene ñoom ci ñoom euh, liñ ci jàng ci alxuraan liñ ciy jàng ci xasida suba ba tey lépp rek yàlla jotali leen ci yool bi te taas ci seen barke barke Cheikhul Khadim imaam sama kàddu du bari lool rek laay def santaat dëkk bi ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla dool ñu noo ñaanal ay ndaw lañ yoo xamante ni am nañ yéene ci liggéey bi ah waaye néew nañ ci doole kon na lépp imaam ngeen dool ñu ñaan yàlla mottali teg ñu ci yoonu njub ba ñu mën a liggéeyal sëriñ bi da daje ci ngërëmam barki Cheikhul Khadim mu ngi sant bu baax Baye Daouda euh, sant waaye sunu jàmbaar ji mbayloo Italie la nekk at mu jot moom it mu ciy def liggéeyam yàlla dogal mu fekk ko fi ren mu ne dina ko teewee si far fi mu ñëwee fekk ñuy jàng kaamil sëñ Baye ñoo ngi lay ziar bu baax di la yóbbante ab euh, yóbbante ci mboolem ñoo ko seqal kon nii rek la yàlla yàlla motul lépp barki Cheikhul Khadim ginnaaw waxtu bi dafa xatt timis léegi mu egsi kon foofu laay tënk sama kàddu rek imaam di la jox rek nga ñaaxaan mbooloo mi ñaanal nu ñu dellu ci liggéey ba guddi insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyu sang yu tedd yi toog Mbàkke am jataay boo ci amee sang am ci sëriñ am ci mag am ci rakk war ngaa wàcc fatabaarikàllaa bul woon ak ndigal du ma yëg si waaye sama sëriñ moom bu max rek ne dafa xurfaan te maa ko gën a xurfaan fopp ba max ma rek ne ma sànn ci ay kàddu waaye kàddu yi du du du du gudd ndax boroom jataay bi mu ngi fi toog fu ma dem toujours dama koy wax mooy suñu mag mooy suñu kilifa mooy suñu ustaas di jàppale suñu wàllu àlliwooy bu baax a baax ñu Cheikh Birahim Diouf mi toog ndax bi sëñ Mara di wax ci kaamil bi nee na moo ko fi njëkk a teg loolu tam muy dëkk fa tabarakallaahu wax na ni ren la ñaar fukki at ak ñaata ñaar fukki at ak ñaata juróom-ñett ni ñun ay gone lañu waaye ñaar fukki at ak juróom-ñett gone gu ko samp ci sampum mag mbàkke lu waay di samp rek samp mag ñee la gën a wóor sëñ Saliou ko fi lépp luñ ci am yàlla na ko fekk ci biir suufam muy leer ak njëggal ak yërmande ji lu yëpp bokk ndax lépp mooma bu doon ak moom lii fii dara du fi tàkk kon fa tabaarakallaahu bi mu xoolee gis ñuy ay ndaw booba ca jamono jooja mu tudd leen miftaaxu saadayni muy tur woo xam ni jar nay toujours damay wax ni jar nay jar na di firi nit ñi xam lan la ndax boo jëlee ay ndaw jox leen tur woowu am tegtal la kon fa tabaarakallaahu du ma guddal di leen ñaanal yàlla nee na ay ndaw lañu waaye am ñaar fukki at juróom-ñaar wala juróom-ñett di ko def as mbir léegi nga màgget kon nag yéenay mag ñi ñun ñi leen xaw a féete mag sax mënatuñu fa tabaarakallaahu damaa soox pour yëg si rek imaam a ngi soox léegi léegi ne damaa xurfaan xurfaan man ko maa la gën a xurfaan fop te kii may bëgg a jox sa parole bi muy suñu mag wóor na ma wóor na yàlla ñoo ko tane kon tanante rek a fi ne di ñaan yàlla imaam ñi ustaas ñi ngi leen di siyaar bu baax a baax di nuyu ñu fi toog ñëpp lépp lu ñu fi jàng rek ak kuñ ko jàngal. ci barke yonent bi barke Seexul Xadiim barke sëñ Saliou Mbàkke yàlla na ko suñ borom nangu ah sa bëtal ko ci niñ ko niñ ko yéene ñëpp fa tabaarakallaahu xanaa ba bañ a sànni ay kàddu kimis jot na ah di ñaanal ñëpp di ñaanal ki nga xam ne mooy jëwriñ ji sëñ Abdourahmane Mbàkke Abdou Karim Mbàkke muy koo xam ni soppe la ci man fa tabaarakallaahu ndax lépp lu nit di seet ci moom ci yar ci ay teggin ci xam-xam ci xàmmee ak ràññee lépp ngi ci moom mbàkke yàlla bu ko làmmiñ jiitu yàlla na yàlla wéral ay cëram xam naa ni maa ngi bëgg guddal naa jox Cheikh Birahim rek moom mi nga xam moom moom mbooloo mi di suñu kilifa ma gàttal foofu ji wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di siyaar ñëpp yàlla mbir mi mën na xanaa dafa fekk nag sunu imam bu tedd bi imam Abu Al ak Souleymane léeg-léeg mageel bi lu ñuy xool rek fa ma dem ñu cëral ma waaye billaay li ñu may wax nii ñoo ko gën a xam fuuf ñoo ko gën a man waaye nag loolu ci boole nga ni fekke kaamil bii ma njëkk lal basang bi jël kaamil bi tekki dem wooy Amar Sarr wooy imam si ñu julli timis tëj ko amat saaru ko xam mu sëriñ Abdou Karim moo ko tëj booba sëriñ Abdou Karim mi ngi dëkk fii jàkkaarloo jà jàkkaarloo jumaa ji booba demagul sax cité millionnaire ba jógee fa di dem Dalifort ba jógee fa dem Falefe lu dëgg waaye lu mu ci woon suñu borom def na ci njort bu ko ëpp ndax damay xam ne lii may wax nii wa ma shayinna illa bi ma alimna wa ma kunna lil ghaybi xaafisina mais lii may wax nii da nga ci xam dara ndaw mii def ci xam dara daaw liggéey mais daf ci xam dara lu dëgg waaye lépp mujj na teew ci loxo Souleymane bi mu xam ci lépp kon ñaar fukki at juróom-ñett bañ ko dindee ci seeni at da ngeen xam ne am am ngeen ñi leen jàppale am ngeen ñi leen gunge ñooñu leen gunge nag mooy ñooy laaltaa yoon kaamil bii sant na yàlla bu alhamdulilahi rabbil alamin bu mu egsee fii ndax booba temps eggul woon fii de booba eggul woon fee léegi nag léeg tamit nit dugg ci bâche bi daal ni ñoom góor gi Birahim Diouf de duñ leen gis ci bâche ba fekk na yéen ñu joxoon ndigal ñu ni yéen bi ngeen wàccee kaamil ba pare ba ñu jox leen xéewal yi jéggal nañ leen sëriñ Abdou Karim Mbàkke mii yàlla dogal nga xam ni moo koy taxaw saa yu ci masaana pare ci suba gi day ñëw sama kër ci suba gi te daa ñëw sama kër puy <laughs> kii ba Serigne Daouda da daa ñëw sama kër fii kon na maraan ñoo ngi leen di leen seet leen ñaanal yàlla lii rek mooy liggéeyu mag yi ma képp ku fi wootee naan damay def daawa xanaa yow même booy wootee ñu nangul la ñu la juutu woon woote war nga deen nangul ah wala seen sabaxuuna fi iman yooyu dañ ci war a bañ dañ ci war a am wax di ko déglu tey boo wootee naan yonent bi nee na nangam nee na diw nee na yow ñu nangu la maandu noppi nekk ci lu ñu ne ñu njëkkoon ñu woote nag dañ leen di dëkk sànni hsl maaxuul est-ce que la yumkinu est-ce que loolu mën na nekk wan yàlla na yàlla lii rek ci mag yi jublu woon bu ëllëgee ngeen kay jokkalante ndax jamono bu nekk dina am ñu jamono këf waaye dinañ amal yi sobe li jamono di sawee nag mooy ñu nekk ci lii ngeen ne waaye jamono bu nekk nag dañuy wax ne inna haza zaman du dëgg taala jamono bii metti na turub du dégg dem na bi nga xam wa taala attat am waajuhu duusi dem na ba labal na ñu bare mais ñu ci mucc ñëpp mooy ñu leen ñu leen tëngoom ku ñu tëngoom na nga mucc mais gis nga tey mbir mi di dem bay tey lii imaam raati doomam ji di ko taxaw mooy dem ba Amat Sarr moo jur kii kii ñëw taxawee ko mu dem ba imam si mu ngi nii ay doomam ñëw taxawee ko lii rek la mag yi doon def yàlla yàlla allahumma amin allahumma jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam naa daa mel ni comme waxtu waa ngi jeg rek imaam ah sëñ sëñ bi fekkee na amut kàddu ci kii rek nu ah waaw daa mel ni kon timis gi daanaka dafa jege waaye imaam maa ngi sàkk sàkkuwaati ci jataay bi ni ma ko fexe woon daaw incha allah ngi laal ma suñu jëwriñ ji sëñ ndongo ndaw ndax ndongo yàlla dogal na yéen bi diis na ci kawam loolu waaye du onk te kenn du dégg mu jàmbat ndax lu tolloog ñaar fukki at juróom-ñett ñu nekk këram def ko daara ñëpp sax kër gi daara ji lañ ko xame ñun xamuñ lu ñu facture am mel courant ndox waxaale wuñ ko cantigeeg lu nu mën a def ci kër ga tey it duñ ko duñ ko du feeñ ci moom njabootam kenn ñemewut a yëngu kon jëm moom ak ak bëgg la loolu nag ñu ko ci ñaanal kàttan suñu borom dolli ko dimbale moom it ndax yëg na yëg na yëg na yëg na li ñu ko defal daa koy wax na ko sa kër yàlla dogal balaa ma fay dëkk man jàngale naa fa alxuraan lu mat at bi kër gi paree te dëkk gu fa jàngale naa fa at moo xamante ne maa doon jàngal gone yi ci euh, euh, lu mat at jàngale naa ko fa alxuraan ci daara jeeg yu bari ci koñ bi maa leen dalal tey it musta ong bu yàlla dogalee kër ga pare it fa lañ def daara ba fii mu toll nii kon nag loolu ak cant la moom it ñu koy ñaanal baa imaam waxtu bi xat na waaye boo demee comme timis joon nañ ñaanal waaw ah, waaw dëgg la incha allah moom dafa jël léppam jox sëñ Tuubaa sëñ uh-huh. bu jël léppam jërëjëf na ndigal waaw imaam joxe na ndigal kon bisimilah faatee salaatu faatee faxlaxeeg naa si ayatul kursi kon noo déggandoo ko incha allah ko salaatul fatiha bismillah ñaanal mbooloo mi yépp yal yàlla def jëwrin Cheikh Abdul Karim Mbàkke moom sëriñ maxtar moom Mamoor Jaara waaw ndax mooy mooy suñu cër ci yoon wi moom lañu sëriñ Saaliw booleel mu nekk ci sunu kanam dafa yàgg lool te wér barke sëriñ Saaliw yàlla sàmm ko sàmm njaboot gi daayira bii ah nañ ci dolli ñaan ah imaam nee jëruñ ñu ci ñaan ndax boroom mën na boppam mën na kanamam mën na ginnaawam wóoroon na ko ne bu ko sampee mu dellu ginnaaw du ko samp alhamdulilah bismillah bismillah لما سبقنا حق إلى صراط المستقيم وعلى آله عليم إن الله عليه وسلم وتسلم صلى الله عليه وسلم ربك وسلم وسلام وسلام الحمد لله رب العالمين